mu mel ni kon nag Hachim daal Abdul Muttalib am na cër mais Hachim it cëram ku ne gis na ko kële te alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil kii ci li ilaafi Quraysh ilaafihim yàlla dafa sot te ñoom ñaar ñépp maamu yonent bi lañ kii mooy jur baayam kii mooy jur baayu baayam tabarkalla tabarkalla dafa mel na daan na wax waxin bu mët a bàyyi xel moom Haasim nee dënn bu ca gillinu safara jëkkee ne kenn du ca tapp médaille nee dënn bu ca gillinu safara jëkkee nee na kenn du ca tapp médaille muy li yonent bi wax ni fu yet jekk bu fa kenn teg terang waxu maamam boobu la dundal mu mel ni kon nag tabarkalla la kuy roy am nga royukaay ndax yonent bi royukaay la te yàllaay borom bi te moonu sant pour ñu roy ko mu mel ni bu jamono naqadee ba naqadi nag ci lay gëna neex nga am yonent bi xamuloo ni neexul bala ngaa xeex am faussës neexul neexul bala ngaa xeex am faussës neexul waaw li neex mooy am kilifa gu la jox jikkoom ba doo soxla fa sës sa gannaaw loolu rek moo am solo am naa yàlla am naa yonent bi am naa alxuraan waaye daal lii ñemewuma ko kenn mënu ko dégg loolu kenn mënu ko dégg te dañu nekk ci jamono jamono bu nga xam ni bu pas-pas amul àdduna tukki bu pas-pas amul àdduna tukki bu pas-pas amul àdduna tukki te e, source bi mi ngi fi te feek ngay jonjoog moom yaa ngi bokk ci ñi yàlla nawal bopp inna axlasnaahum la wax bi xaalisati dikra daan inna axlasnaahum bi xaalisati dikra daar am na loo xam ni ku koy fàttaliku doo ñaaw mënul nekk te euh, dafay jamono bu nga xam ni sunu jikko yonent ak jikko yonent yi ko jiitu dañu nanguwul eh, ni tubaab di tëralee àdduna nga tënku ca ba mu jeex nanguwu ko li mu nangu mooy li Sidil Hadj Malick waxoon tubaab yi dañ ko ni dañu bëgg def ay école ci réew mi mu ni bu ngeen ma laajee Babacar ma jox leen ko ñu ne ko lu tax mu ni jiitu naa leen ci moom ku sa baay jiitu ci yow nag école bu la neex mën nga ca jàng waaye ku sa baay jiituwul ci yow والتل والتل نخ أه، جنرال دغول دفا واخ اندري مالرو نيكو لوتخ نيت ني راغال نو مونيكو لينو ديف سي دوزيام غير مونديال بي موتاخ mu ni ko moo tax ñu ragal nu ku jël sa mbokk tàngal fuur ba mu tàng nga dugal ko ca biir ba mu ñor xom kenn dootu la ñeme mu ni ko lii rekk la mais tubaab yi xam nañu seen défaut mais ñun ñoo ko nanguwul a xam mais ñoom xam nañu seen défaut te dañuy wattu mais ñun ñoo ko nanguwul a xam bëgg nekk ay éternel colonisé te kooku it jaaduwul kooku jaaduwul bu ko defee di ci bàyyi xel lu am solo la euh, dina tax nga am mesure dina tax nga teral sa bopp dina tax nga am dignité tabarkalla tabarkalla bii jamono bu doy waar la ndax itam dangay gis kilifa tubaab yi am lu nekk fu leen neex xare waaye bu ñu bëggee xare ba fay mu leen ticc ñoo moom alal ji ñoo moom gànnaay yi ñoo yilif militaire yi lu ne ñooma mais ay wu ñu taal duñ ko mën a fay walla ba lañ ko fay lu ne xaj te bu ñu fayee itam fokk ay gillanti des fa mën a taal lu nekkati encore mu mel ni kon nag lu mat a bàyyi xel la parce que ñoom sax bàyyi nañ ci xel ndax nit bu yëgee ci boppam ak doyadi foog mu bàyyi boppam xel te ñoom yëg nañu ci seen bopp doyadi waaye ñun ñi leen di roy nag am na lu ñu war a bàyyi xel ñu bët ki démb lay wax ak sama benn mbokk taalibe mu ni ma ndax li ñu ni nit ku ñuul yàlla daf ko rëbb dafa am ma ne ko amul ma ne ko waxeen rekk la ma ne ko waaye amul te laaj ba la ko sabab mooy koo xam ni sa bàyyi ko tane ci àdduna waaye moo defar avion tax nga bëgg ko jël teg ci sa kaw baay du sotti kooku du sotti te itam mën loo musa ko mu cet ba mu jàppale ni boppam waaw mënul nekk loolu moo xew ci jamono mu mat a bàyyi xel ndax daf leen jaaxal ñoom ñoom ci seen bopp daf leen jaaxal ñu di ko wax guddi di ko wax bëccëg di ci bind lu ne te liñ ciy bind jaarul yoon li jaar yoon te jaar yoon mooy alquranul karim